di am bu baax a baax di ànd ak ci euh, suñu actu TV mbokk yi asalaamaaleykum ñu dooree xibaar yi ak na caractère bi nga xam ne moom moo dal di euh, dal ci monde culture rawatina euh, politicien bi di Ousmane Sonko moom itam naqar weeg tiis wi dal na ci euh, kawam ndax waykat bi le nga doon wuyoo ci turu Billy Boy moo dal di génn àdduna moom mi nga xam ne ko bëggoon Ousmane sonk la dem ba jagleel ko aw way way ko ca Ousmane Sonko ndaanaan la waykat boobu moo fi mujje bàyyee ci feebar bu ko tëraloon loolu moo ko mujje yóbbu rédaction bu suñu Actu TV di ko jàll Sénégal yëpp ñu àddu wax ci euh, leneen mu di lu jëm ci wàllum politique ginnaaw bu Mimi Touré waxee ne dafay demal ak uh, waa yëfu boppam ci lu jëm ci uh, élection présidentielle yi ñu mal ndax dafay daldi rek bàyyi président Macky Sall ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo topp ci ginnaawam li ko waral mu di présidence bu assemblée nationale ba mu ko digg te yooyu yëpp dara amu ci maître Omar Youm moom mi nga xam ne moom moo jiite groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar mu mel ni manqué wul benn yoon ki nga xam loolu daal di koy tontu ci am ndaje mu ñu amaloon démb taskati euh, xibaar yi ñoom majorité euh, bu Benno Bokk Yaakaar ci la ko maître Omar Youm xamale ne euh, balaa ngay dem il faut rendre César ce qui appartient à César balaa ngay dem fenn rek li nga xam ne ñoo ko moom deloo ñu ko mu di bañeeru Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne rek moom la doone tey ab député ci assemblée nationale mu jàpp ne Mimi balaa mu doon génn dajeek taskati xibaar yooyu yëpp waroon na caa jiitu rek ab lettre am daal di démissionné ñu mën ko kaan nangul mu mën a dem ci coobarey euh, boppam gàmmu Tiwaawan ñaari at yoo xam ne rek amul ñu ngi koy waajal ginnaaw dogal bi nga xam ne ndëga di la ko euh, ki nga xam moo di xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour jëloon ci lu gi euh, na ko amal mu mel ni rek ren ji ña ngi koy waajal ba ci burdu bi sax bisub gàmmu ñu jàpp ko li nga xam ne rek moom moo di fukki fan ci weeru satin bar bi nga xam ne fukki fan ci weeru octobre bi nga xam ne ci lañu ñu nekk ñiy lam-lame fukk la wala juróom-ñeent waaye lu mu ci mënti doon rek Tiwaawan ren daañu gàmmu comme ni ñu ko doon baaxoo di gàmmu ndax bu ñu fàttalikoo mbas mi nga xam ne moo fi jot a jaar moo tax rek ci diirum ñaari at yoo xam ne gàmmu Tiwaawan amul accident bu métti métti moo am ci euh, Sindia nekk ci département bu Mbour ñaari oto yu mbëkkante ba juróom benn doomu aadama jot caa ñàkk seen i bakkan ci saase ay nit yu ci am ay gaañu gaañu yu métti métti ña ci am ay gaañu gaañu nag daal dinañ leen di rawal ji ca hôpital bu Mbour euh, de même que itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci daal di faatu ba noppi ñu daal di cay ubbi app ab l'enquête lu jëm ci wàllum président de la république Macky Sall ak coowal troisième mandat gi ñuy lam-lamee dëgg laam du dëgg Gauthier Pasquier nekk ab analyste politique waaye itam mu nekk ab journaliste spécialiste ci Afrique de l'Ouest dal dinay xamle ne président Macky Sall dal dinay entretenir li nga xam ne moom moo di ab discussion ak cabinet am waaye itam li nga li nga xam ne moo di ministère am ministère am ci lu jëm ci wàllum troisième mandat gi nee na kaddu yi nga xam ne rek moom la jot a yëkkati dal di koy jokkalante ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ko ëmb moom moo di du amal li nga xam ne moom moo di troisième mandat analyse politique bi di Gauthier Pasquier yemul foofu dal dina jay teg ne président Macky Sall rassuré na Macron ne du mës a def li nga xam ne moom moo di troisième mandat nag ba mu ko waxee ba léegi mu ngi tàmbali di jur ay débat ci wàllum politique bi lan moo tax rek euh, euh, ki nga xam ne moom moo di ab analyste politique boo xam ne mi ngi euh, dëkkee fi nga xam ne moom di ci Afrique de l'Ouest moo yëkkati lay kàddu war ko mën a seede ci président Macky Sall waaye fii ci réewum di Sénégal xamuñu comme ni ñu ko waxee woon rek nii wii nii non du benn yoon boo xam ne rek yëkkati na ay kàddu leeral ko di a amal xam ne moom moo di troisième mandat mu mel ni yëf a yi nga xam ne Mimi Touré wax na ko ni ki bërki démb di wax ne bu demee rek ba woon président Macky Sall ak nguuram ginnaaw moom moo di lu jëm ci wàllum troisième mandat ci wàllum rab bi clash bu métti métti rek moom moo dox ci diggante rapport yi di Akhlou Brick Paradise ñu dal di cay ràññee ara ak DG ñoom nag ñooy joxalante ay kaddu ak Ngaaka Blindé mu mel ni rek saan gu dem weneen saan dellu si waat ci diirub ñaar jàpp ñetti fan ku ci nekk ci ñoom ñaar jot nga génnee ñaari woy yoo xam ne rek ña ngi koy classante classante yu métti métti mu di def effet effet secondaire ñu daal di cay tegaat li nga xam ne moom moo di éphémère Ngaaka Blindé daal di génne li nga xam ne moom moo di mbay lëmbe jamono ji may wax ak ak lu brik jël nañu gros plan ngir dem daal di loolee di leer waaye ngaaka ci ab live boo xam ne rek def na ko nee na Akhlou Brick demuñu fenn fu dul gàmb gi gàmbi gi la ñuy dem def ji effet de l'air bi ba muy gis ñuy euh, diri seeni valise dafa yaakaaroon ne rek ña ngay dem Dubai États-Unis ak feneen ak feneen waaye gàmbi gi la ñu jël billet soixante quinze mille francs la ngaaka mooy wax ba noppi nga teg ca ne waa Akhlou Brick dañoo dal di raté seen vol te bu fekkee ne que dal dinañuy génnee li nga xam ne moom moo di de l'air bi euh, dina ci Italie États-Unis wala feneen ak feneen ngir dem wane leen ne moo leen ëpp doole moo leen ëpp xaalis comme ni mu koy uh, waxee saa su nekk ñu wax ci Viviane Chidid Ndour mi nga xam ne depuis que mu divorcé ak Bouba Ndour euh, dañu naan guleet mu toog euh, ci ab entretien boo xam ne jot na ko am ak Boubacar Diallo ngir daal di ci wax ak dundinam euh, ca bu mu nekkee ci ab sëy am digganteem ak Bouba Ndour mi nga xam ne moom ñoom ñaar sëy nañu ay at yoo xam ne rek moom mu jot kaa jural ñaari bant li taxoon ci joojule jamono amul woon problème ci lu jëm ci wàllum liggéeyam moom moo di Bouba Ndour comprendre woon na ko te ci métier mi la nekkoon waaye itam ñaari doom yi nga xam ne jotoon na ko am ak Bouba Ndour ay goroom ak ak nga xam ne ñoom ñoo di ay njëkkeem ñoo ko doon teel yooyu lay xale ba tax mësu ci am benn jafe-jafe rek ngir wéyal li nga xam ne moom moo di carrière am waaye beneen laaj boo xam ne Boubacar Diallo laaj na ko ko ginnaaw bu mu divorcé ak Bouba Ndour gis nañ ko muy woy ay woy ci jëm mel ni woy yu mbëggeel trahison ak yu ni mel ndax daf ko daf daf koo dund wala amaana kale xew moo ko metti ba muy woy woy yooyu mu tegal ko ci ne ko du moom Viviane moom di lamante wu di moom moo di vie privée am lu dul ni ko rek dafa doon loo xam ne euh, liggéeyam la ab chef d'entreprise la dafa war a nekk femme forte courageuse ba noppi war a mën a taxaw taxawaay boo xam ne rek ku ko seen naw ko respecté ko waaye li nga xam ne moom moo di euh, liggéeyam am na ci bu baax a baax ñoo xam ne ñoo ko jàppale soutenir ko tey euh, ba mu agsi fi mu agsi coowal Adja Thiaré ak Californe Sall am na leneen lu ci si ginnaaw lu jëm ci wàllu rapport médical bi ñu doon xaar te mu nekk ci hôpital Philippe Senghor Adja Thiaré nee na yëf yi tuumaal ko euh, mu mujjee nag gisul dul dal di def ab post ci Instagram ngir xamal sénégalais yi fan la dossier boobu euh, toll ni kiy démb rek la ñu waroon euh, dem ca gendarmerie bu Wakaam ñu war leen dal di déglu ci ab confrontation waaye yëf ya mujjul antu ndax réquisition ba dafa disponible woon mu di li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllum rapport médical boobu lee Adja Thiaré tekki ne li tax mu yéex jaaxal la na ko te depuis àjjuma bi weesu rek ci lañ ko waxoon dafa jàpp ne dafa am leneen lu tënku ci euh, mbir moomu euh, mu di lu jëm ci wàllum njuuj njaaj yoo xam ne rek euh, bu ci juddoo dossier bi du mujj fenn wala Kaliphone Sall amaanaka ñu ko attee nañu ko waroon attee duñu ko atte noonu ca geneen wàll ga itam mu mel ni Kaliphone Sall ma ngay justifié wu dem bay def ay révélation ci diggante bi nga xam ne rek moom moo fi jot a jur coow di digganteem ak Adja Thiaré Diaw keneen ku ñu tudd ci coow lii mu di Cheikh Ahmed Cissé mi nga xam ne ràññee nañu ko lool ci ay coow ñenn ñi wax ne fi ne ay wax yu ñaaw rek lay wax ci gémmiñam gi du ci mës a génne lu baax euh, ca geneen wàll ga ñuy laaj ndax dafa alkoom déet ndax jot na fee euh, dal di am ñaari coow moom ak benn këru diine waaye ba ca des digganteem ak euh, waa kër Serigne Mboup la Cheikh Ahmed Cissé mi ñu tudd jowal Kalifon Sall ak Adja Thiaré Diaw ma ngay tàmbali di justifié wu la ca jiitu mu di ay vidéo yoo xam ne rek mu nga toog këram di ko def ngir nettali coow la ak na mu tëddee waaye yemul foofu mujjee naa dem ci ay plateau télévisé di boobee ndaka la def ba xam caare ak xaritu caare bi nga xam ne lu jiig njaak ñoom ñooy njaak Cheikh sa yemul foofu ndax dal dinay euh, tuumaal boppam tuumaalaale Kaliphone Sall mu ne moom nit la dafay euh, njaaloo nëbb ko waaye bu demee bay njaaloot dina ko def keneen ku dul euh, genre jigéen yi nga xam ne ay cure-dents sax moo leen ëpp lu jëm ci wàllum sexe itam da koy def comme ni ko ñëpp di defee dafay njaaloo dafay def lépp loo xam ne rek góor da koy def mu doon kàddu yoo xam ne ci ko xam ne Sénégal yëpp biñ koy soog a découvrir respecté woon nañ ko ndax dafa nekkoon ci yoon woo xam ne rek mi ngi doon wax yàlla nee na yónnent bi nee na doomu Ngoye Fall jile di euh, soxna May euh, doon koo xam ne doon nañ ko faral di gis ci wetu yaayam rawatina ci na coow sampaay laaj yu bare bari jot caa juddu lan moo tax soxna May ñëwul ba Mama Touré doon doomu Askia Touré daal di koy utu euh, ca wetu yaayam di Ngoye Fall ci joojule jamono mama mu ngi woon fii ci Ndakaaru doon def ay photoshooting yoo xam ne jot na kaase seq ak benn euh, waay boo xam ne mi ngi nekk si styliste bu mag fii ci euh, Ndakaaru ci noonu foto yi nga xam ne posté woon na ko ak yére ya mu soloon ñu xëy rek gis soxna May posté ko di jaay yére ya euh, bi gi dal di def ab post moom itam ci ab ano boo xam ne daal dina koy publier ngir def ay gaaral ñu bari di wax ne soxna May lay gaaral bi gi daal di bind ne li nga xam ne rek moom moo di ñàkk classe ak ñàkk valeur mënul weesu rek sol ay yére ba noppi di ko jaay li nga xam ne euh, moom moo di yëre yooyu doo Beyoncé doo Rihanna te li nga xam ne moom moo di euh, sap wérgu yaram wala leneen loo xam ne rek war naa mën a daal di am ci yow bu ñu la liggéeyee bul toog di ko fi wax ndax kenn du sol sa yére ba noppi di ko jaay mu doon kàddu yoo xam ne ci ay commentaire sénégalais yëpp ñu ngi wax ne Biggi waxul kenn ak kudul euh, soxna May ñu daal di woo jeexale xibaar yi ak match Sénégal bi nga xam ne rek moom la doon amal ni ngi dox ci diggante Sénégal Iran ci première mi ba nag Sénégal moo mu dugaloon benn bal ci dara waaye mu mel ni dañoo mujjee rek égaliser benn benn moom la ñu mujjee ci diggante Sénégal ak Iran mbokk suñu Actu TV ñu doon am mbégte doon ànd ak yéen fii la ñu dakkale bi lépp jotaay xibaar ëllëg ak yeneen ponk ñu war a waxtaanee jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm.